chers téléspectateurs de la première chaîne privée du Sénégal la 2STV maa ngi leen di nuyu émission au galop tey nag dañ leen defal spécial émission boo xam ne dañuy jël nag course yoo xam ne groupe un bi muy les cracks adulte moom lañ leen di indil boo waxee les cracks adultes nag sa xel day dem ci ki nga xam ne mooy Dardas xam nga ne Dardas groupe 1 la bokk bokk écurie réunie bu professeur Sakhi Thiam am na cinq réalisation bi saison bi ubbee ak looy moom la ñuy jàpp comme favori waaye nañu bàyyi xel ki nga xam ne mooy Auguste bu Riyane Sidi Mohamed ña bokk écurie Adja Cuuc waaye nañu bàyyi xel ki nga xam ne mooy Doumayeen bu Iboko Lebao bokk écurie làmb Faar waaye nañu bàyyi xel Aminu Uma bu Omar Babou Junior bokk écurie Lamb Faar waaye nañu bàyyi xel ki nga xam ne mooy dammel Teeñ am na benn réalisation bokk écurie Sala bu Bunaama Diop waaye ñu bàyyi xel Dalinkoor bokk écurie Lamb Faar euh, bu Iba Kole bàyyi xel Riyaan euh, Rayaan bu Alé Diagne bokk écurie la Saint-Louisienne waaye ñu bàyyi xel ki nga xam ne mooy Médina bu Cheikh Tidiane si bokk écurie Adja bàyyi xel ki nga xam ne mooy Daaru Sam bu Matar bokk écurie Adja xam nga ne neuf yi neuf fas yi ma leen tuddal yëpp ñoom ku ci nekk raw na waaye kii ëpp réalisation mooy fas boobu nga xam ne mooy Dardas bokk écurie Rewmi bu professeur Sakhir Thiam am na cinq réalisation ki ko tàlloone de près moom mooy ki nga xam ne mooy Auguste bu Rian Sidi Mohamed Niang bokk écurie Adja Thioch ki jël troisième position nag mooy Aminou Ouma moom moo jël troisième ndax moo leen raw li nga xam ne mooy dix-septième ak dix-huitième journée bi nga xam ne moom la ñu génn tey seen émission au galop dañ leen indil spécial crack adulte yi muy groupe 1 bi gis ngeen bi saison bi ubbee ak léegi course yi ni mu neexee euh, ñu koy disputé nag ci fair play euh, que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque fas yaa ngi ci box yi ñu nekk huit partants war a daw di su 1650 mètres génn nañ ci starting block yi ñu nekk huit partants war daw distance su mille six cinquante mètres waaw ñu raj raj rajloo waaw seen naa magistrat mu nekk ci ligne bi gis naa magistrat waaw waaw nekk na rawante bu rëy a rëy dalinkoor dalinkoor ak magistrat daal daal ak magistrat Delphinia moo génn magistrat ñëw na ci kanam Damel Teeñ a ngi daw lu bëree bëri Damel Teeñ mi ngi ñëw en troisième position ñoom ñëpp génn nañu Damel Teeñ génn na Doumayen Damel Teeñ génn na Damel Teeñ génn na Damel Teeñ génn na Damel Teeñ a ngi ci kanam Damel Teeñ Doumayen Damel Teeñ Doumayen Damel Teeñ Doumayen magistrat Damel Teeñ Doumayen magistrat Premier numéro 4 d'Amelten, deuxième numéro 6, numéro 6, numéro 6 Doumayenne, Doumayenne, numéro 6 moo jël deuxième. ñu El Hadji Omar. nekk dix partant a daw distance bu. jóg nañu deux nekk ci kanam. Ah, non non non magistrat génn magistrat ñëw na ci kanam. magistrat ñëw na. mais magistrat dañoo jóg. dawal ko dawal nañ le numéro 10. le numéro 10 moom mooy Darou Khoudo. Ah. mooy mooy Dumayeen. Dumayeen Dumayeen dañ ko Dumayeen le numéro 10 moo nekk en deuxième position. le numéro 3 moo nekk ci kanam. muy ki nga xam ne mooy magistrat. magistrat est en tête montée par le célèbre Soké Mourou Ndiaye. Momat euh, euh, euh, Momat Dieye moo war. deuxième position Doumayen troisième position Daaru Khoudoss Doumayen quatrième position Auguste Doumayen ñëw na fukk waaw quatrième position Auguste Doumayen ñëw na fukk waaw Doumayen ñëw na mais Doumayen Doumayen ñëw na fukk ci porte le numéro dix waaw ba tey magistrat ngi ci kanam ba tey waaw El Hadj Omar ki nga xam ne moo ji nekk en deuxième position mooy le numéro huit Daaru Khoudoss moo nekk en deuxième position El Hadj Omar est-ce qu'il ne joue pas le jour de waaw Rayane ñëw na seen kaw Rayane ñëw na mi ngi ci aras bi. Rayane ñëw na waaw Damel Teeñ mi ngi ci aras bi. Rayane ñëw na waaw Rayane ñëw na Damel Teeñ mi ngi ci aras bi. am na ku jaar ci ligne bi de. waa ki jaar ci ligne bi mooy le numéro 10. le numéro 10 mooy Doumayeen. Doumayeen ñëw na waaw Fallou Diop moo ko war. Doumayeen ñëw na le numéro 10 mooy Doumayeen Fallou Diop moo ko war. kon kon ki nga xam ne mooy magistrat moo nekk ci kanam ba tey toujours magistrat en tête deuxième position Doumayen troisième position Auguste toujours magistrat deuxième position le numéro dix Doumayen Doumayen dawal nañu Doumayen mu ñëw xale bi duur na ko benn karawas dawal nañu Doumayen waaye magistrat bañ na magistrat bañ na troisième mi ngi leen mu ngi nekk en troisième position Auguste ñëw Auguste en troisième position. deuxième position duma yéen. Auguste ñëw na. Auguste ñëw na ci kaw duma yéen. Auguste ñëw ci kaw duma yéen. Auguste fi mu jaar baaxul. waaw fi mu jaar baaxul waaye. day tardé waaw day tardé. day tardé foofu mu El Hadj Omar magistrat moo nekk ci kanam. magistrat bi ci kanam ba tey ñu bi. ñëwaat na duma yéen ñëwaat na ñëwaat na duma yéen ñëwaat na duma yéen ñëwaat na duma yéen génne na bopp duma yéen génne na bopp magistrat génnaat na waaw duma yéen génne na bopp magistrat génnaat na duma yéen génne na bopp magistrat ñëwaat na duma yéen ak magistrat troisième position le numéro deux magistrat magistrat génn na ci kanam El Hadj Omar 200 mètres moo leen dese à l'arrivée 200 mètres moo leen dese à l'arrivée Auguste ñëw na ci kaw magistrat Auguste génn na Auguste raw na Auguste Mohamed Gadiaga moo ko war stratégie la dawal Auguste raw na le numéro 2 premier le numéro 2 Auguste deuxième magistrat troisième Doumayenne quatrième le numéro 4 le numéro 4 Faydou

dans le fair play et dans un esprit na génn nañu El Hadj Omar génn nañu <laughs> gis naa gis naa ñu ngi jàkkaarloog ñun El Hadj Omar ñu ngi jàkkaarloog ñun nekk na course bu rëy a ah, Hadj ah, Omar. Amadou Diallo waaw Amadou euh, Diallo magistrat génn na. magistrat génn na El Hadj Omar. joxe na ñaar na deuxième position. Auguste <laughs> ñëw na Omar. Mhm. waaw Daaru Sam ñëw na. Daaru Sam ñëw na. ñëpp ñu ngi ne tekk <laughs> waaye magistrat moo nekk ci kanam. parce que magistrat moo nekk ci kanam jokkoo bi ko war mooy Modou Dieye. waa damaa yàgg deuxième position Auguste. <laughs> Auguste moo nekk en deuxième position waaye du ma yéen mi ngi ne tek rek. waaye Amadou di leen bàyyi xel El Hadj Omar. Amadou Diallo boo waxee Mamadou Dieye di nga gërëm di nga gërëm. waaw Kéba Dieye. waaw gërëm yëpp. gërëm le président de l' assemblée nationale Moustapha waaw jox ne leen <laughs> jox na leen juróomi longueur <laughs> ki nga xam ne moom mooy xale ba moom mooy magistrat mi ngi koy delloo waaye fas waa ngi bañ xale ba ngi koy delloo li mu koy mi ngi koy delloo li mu li mu jël moo bëri li mu jógee dafa bari li mu jógee dafa bëri bëri le numéro trois mooy magistrat jox bi ko war mooy moo Modou Dieye waaye Amadou Diallo rawante nañ ko teg ci yoon waaw ndax deux ñuy daw te bu ñu ñëwee dañuy rombaat te bu ñu rombaatee waaw magistrat moo nekk ci kanam deuxième position Auguste. Ah, ah, ah, Auguste moo nekk en deuxième position le numéro un. waaw Auguste xanaa dafa dem fi mu dem mënatul a dellu gannaaw. waaw waaw waaw Auguste moo nekk en deuxième position El Hadj Omar. mais contrat waaye waaye Senna Medina Senna ki nga xam ne mooy Faydu xob Senna du ma yéen. gis naa Darou Khoudoss. Darou Khoudoss mi ngi ci biir. ci ligne bi ci waaw Darou Khoudoss mi ngi ci ligne bi El Hadj Omar. mais Darou Salaam Darou Darou Sam tu ne vois pas. waaw waaw waaw El Hadj Omar. ah le numéro sept du ma yéen. Amadou Diallo dox bi. bi gaaw na de. waaw waaw du ma yéen dox bi gaaw na dox bi gaaw na du ma yéen ñëw na dese na leen 1000 mètres. Amadou Diallo dox bi gaaw na dox bi gaaw na El Hadj Omar du ma yéen ñëw na. <laughs> du ma yéen ñëw na. du ma yéen ñëw na en troisième position. dañu dañu xëcc la waaye eh, Darou Sam Darou Darou Sam. Mhm. Darou Sam ñëw na El Hadj Omar. waaw dama wax Darou Sam ñëw na El Hadj Omar. dama wax bu ñu daw fàtte ko waaw Darou Sam nañu bàyyi xel bu baax a baax Darou Sam. ah Tidiane Thiaras bi kan la Amadou Diallo. Darou Sam la. Amadou ah, Diallo am na ku jaar ci arab bi de. Daaru Sam la numéro 2 la. <laughs> Medina la Medina la. <laughs> Medina moo jaar ci arab bi numéro 2 bi. parce que rawante bi dafa jaxasoo. waaw Medina moo ci arab bi numéro 2 bi. na. waaw waaw Medina moo jiitu ci kanam El Hadj Omar. Ah, ah. en deuxième position ki nga xam ne mooy Ogis. Ogis Medina génn na. magistrat jox na benn longueur. waaw waaw. Médina génn na mooy numéro deux bi. en deuxième position ki nga xam ne mooy Auguste le numéro un. des na leen Auguste teg na ko Auguste teg na ko bopp rek. waaw teg na ko bopp rek. <laughs> mais bi rawante métti na de métti na El Hadj Omar. bi rawante métti na de. 200 mètres moo leen dese à l' arrivée. bi rawante métti na de ci diggante Auguste ak Medina. daa mel ne xale yi dañuy waxtaan waaw eh eh ñu ngi waxtaan. daa mel wax. moo nekk ci kanam. daa mel ne ñu ngi wax ñoom ñaar Auguste moo nekk ci kanam. Mm. Auguste moo nekk ci kanam El Hadj Omar premier numéro un Auguste. Ah, ah. deuxième numéro deux Medina. Mm. Euh, troisième numéro sept Doumayen quatrième numéro trois numéro trois magistrat ah. euh, cinquième euh, numéro cinq numéro cinq Faydou mm. cinquième numéro cinq Faydou neuf partants pour une distance de mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque Euh, Abdou Lahat fas yaa ngi jëm ci départ bi. naar góor ñaa ngi nii génn nañu. génn nañu naar góor yi génn nañu. naar góor yi génn nañu maa ngi seet ki xam ne nag moom mooy Dalinkoor. Euh, Dalinkoor hmm. ñëw na doomu Samin Daar la. doomu dana kër la mhm. euh, nga xam ne moom tamit euh, El Hadj Ibe Kole Baaw moo moom waaye ki nga xam moom mooy Mazor dikk ci moom mhm. ñoom ñaar ñoo bokk benn baay waaye ma gis ci ñaari xaj yoo tamit ñoom ñaar ñoo bokk baay di Ngóone Latir mhm. ak ki nga xam moom mooy Damel Teeñ moo tapu ci waaye Rayane ah, ah, ñëw na troisième position Rayane dikk na troisième position puus nañ ki nga xam ne tubaarkalla Damel Teeñ ci kaw Ngóone Latir ñoom ñaar ñoo àndandoo di ñaari xaj ñëw waaye Sawar Major ñëw na deuxième position troisième position Rayane quatrième position Ngone Ratir mm-hmm. cinquième position Damel Teñ sixième position ki nga xam ne moom moo fa mm-hmm. ki nga xam ne tubaarkàlla mooy mooy damel tey mooy damel tey mooy damel tey damel jiital fas yi darras jiital fas ba tey euh, dalinkoor moo génn moo génn mais déjà xam nga major ki nga xam mooy maxa dafa def ci course de rentrée effectivement mu ci groupe bi te jar naa bàyyi xel na ci groupe bi jar naa bàyyi xel moom wu noonu dalinkoor a génn mais mais nga mhm. dalinkoor li muy def nii mhm. moom la daan def deux ans moom la daan def trois ans bu normal ñëwee rek la commencé def contre daw ba pare di télé daw. Ah, ah, dëgg la nanu bàyyi xel ci Dalinkoor. Dalinkoor moo génn noonu. major moo ñu en deuxième position. bi ko war mooy Fallou Diop Fallou Diop douze réalisateurs yi. moo war dali moo war Dalinkoor tey. waaw ñu doon tourné nañ ci tournal ah, euh, mais mais major song na ko. major day am maxa si ginnaaw. am dara am dara si ginnaaw dañu naan ñoo bokk benn baay. boo xoolee seen seen seen tuur yi nga xam ak seen équipe yi nga xam ñoo bokk baay. daanaka yore leen jur. waaw maa ngi ko waaye ndokkeel ki nga xam ne tey mooy dóorali. li ci indi fas yi ñaari waaye Rayane avancé na Rayane avancé en quatrième position Daaru Xudóos moo fa ñëw waaw ah. le numéro sept moo ñëw en quatrième position di Daaru Xudóos mm-hmm. moo fa nekk major mm-hmm. wàññi na distance effectivement euh, major wàññi na distance bi mm-hmm. Rayane en troisième position en quatrième position Daaru Xudóos ah. waaye Euh, Dalincourt mène le peloton. mène le peloton suivi de Major. Euh, Dalincourt mène le peloton suivi de Major en deuxième position. am na ku jaar ci autoroute à Major la Major a jaar mais attention attention Dalincourt. attention Dalincourt Darou Sam la Darou Sam la mën rôle. waaw tey Dalinkoor. Euh, laa ilaaha illallaah attention Dalinkoor yokku na yokku na distance bi Dalinkoor yokku na distance ko war loo ko war attention Dalinkoor boot na nopp bi de mu ngi ànd ak major. troisième position Rayane moo fa nekk quatrième position Dardas moo nekk quatrième position mais Dalinkoor a ngi bu ñu ñëwee dañuy téye Darou Sam Dalinkoor attention Dalinkoor attention bu ñu ñëwee dañuy mais Sidi Sow dawal na Rayane Sidi Sow dawal na Rayane dawal na Rayane waaw dawal na Rayane ñu ngi kabar jàkkaarloog ñun bu ñu ñëwee dañuy téye mais tey su ñu dañu ko ci mène le peloton moo nekk ci kanam dañu ko ci mène le peloton yëngal na geen gi nag suivi de Rayane Rayane en deuxième position troisième position Rayane dikk na Rayane Dalifort Rayane Dalifort Rayane Dalifort Dalifort deuxième major troisième Rayane ay course bi rëy na tubaarkàlla nii rek la demee xam nga Fallou Fallou Diop mii ñoo ngi ñaanal yàlla yàlla yàlla lafal ko cat effectivement parce xale la boo xam ni tubaarkàlla macha allah mhm. li muy def daal mën na ko te dañ koy maîtriser xam nga bàyyi Ibou Kole Bao ah. fu ne mën na fa am première mu neex ko waaye mhm. bii da koy saf parce que fas wi tubaarkàlla daf dafa mu toll ci moom moo doon wax ni bëgg ni kóor bañ ni kóor mooy numéro 10 mooy Messi ah, ah, mooy Messi course bi mu ngi si treize réalisation treize réalisation Fallou Diop waaw Fallou drapeau bi daanu na drapeau bi daanu na drapeau bi daanu na magistrat dafa def mais ñaa ki nga xamante ne mooy Damel Teeñ génn demal génn naa Daaru Xudoos Fallou moo ko war tey mu mu jaar ci bi mais ba léegi nii ñu seet dañoo téye Daaru Xudoos génn na doomu Kazoon génn na Fallou Diop a ko war ji demal deuxième position troisième position magistrat quatrième position ki fa nekk mooy aussi Auguste cinquième position Dardas sixième position Alfat septième position Maxa waaye ki nga xamante ne mooy magistrat fu mu toll nag remplacé na Daaru Xudoos Mor Diop moom moo ko entraîné Damelten troisième position euh, Baye Laye moom moo ko war Seex Kase moom moo Saliou Kobar waaye Auguste avancé na d'office yokku na naanu bi parce que tey jii rawante stratégie la ci diggante moom ak écurie waa réew ni écurie réew ni Dardas moo si mooy si cinquième position mooy cinquième position ah, mais ah, magistrat génn joxe na lu mu bon bon quinze quinze longueur ah. na mal bi gis naa Daaru Xuddoos avancé war na Dardas avancé na d'office avancé na d'office ñëw na deuxième position guddi yu toll nii mu alfaat la ah tey nag rawante rawante stratégie la. Ah. Datas moo avancé. am na ñu met ñooy tourné tournant Gora Couture. numéro bi mooy. mooy magistrat moo nekk ci kanam. Ah. dawal nañu Dardas. Hmm. Dardas ñëw na ci groupe bi. ah hmm. hmm. c' est c' est magistrat qui mène le peloton de Darou Khoudoss suivi de Darou Khoudoss à Dardas. ah, ah euh, waaye damel tey ñëw na Auguste ñëw na gis naa ki nga xamante ne tey moom mooy magistrat génn na ba léegi waaye Darou Khoudoss ñëw na ci moom instant bi moo koy pousse d'office mais nag fu mu toll Darou Khoudoss na ko génn. magistrat deuxième position troisième position Dadas ak Auguste ñoom ñoo fa nekk ah. tey jii rawante xel la rawante stratégie gis naa Auguste ñu daat koy ñu daat koy yeew wi dóor ko benn caravage mais Dadas avancé na d'office mais daal Xudoos génn na fu mu toll o waaw Auguste dugg na seen diggante ah. Auguste dugg na mhm. na seen diggante dafa mel ni dafa remplacé ki nga xam ne mooy magistrat. remplacé na ko remplacé na magistrat mais attention am Maxa ak Alfate ah. waaw Maxa ak ah, Alfate nooye na waaw écrit réew ni ñëw na nu dawal nanu al maxa jaar na ci kaw alpha jaar na ci kaw daar xudoos bañ na tey jii ki nga xamante ne moom mooy rawante bi lu kenn xalaatul moom ndax maxa faal fu mu toll nii jaar na ci kaw moo ngay dem mm. waaye daadaas ñëw na deuxième position troisième position daar xudoos quatrième position ki fa nekk mooy alpha tey course na ndax maxa maxa mi jël cinquième dimanche passé moom moo nar a raw boo fasi boo moytuwul mais nekk mooy Daaru Xudóos daaraas dalaat na ci kaw ki nga xamante ne mooy fa Maxa Fall daaraas a Saint Guinness Lo a ki nga xamante ne mooy Farial Diop deuxième position Maxa Jama Cissé a ak seen finance bay ñoom ñaar ànd nañ tournée deux cent mètres bi ànd nañu Maxa Dardaas ñoom ñaar ñoo tegaloon nañu équipe réew ni ci kanam équipe réew ni ah. Maxa Dardaas Maxa Dardaas Dardaas Maxa Dardaas Maxa dawaat na Maxa dawaat na maxa dawaan na maxa daadaas première daadaas première daadaas deuxième maxa troisième alfat quatrième auguste quatrième auguste cinquième damel teeñ sixième daar xudos septième ki nga xamante ne moom mooy mooy magistrat treize partants pour une distance de deux mille deux cents mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque. Eh, drapeau bi daan na drapeau bi daan na drapeau bi daan na fu mu toll nii war nañu ginnaaw waaye magistrat gis naa ko féet na ci bi. waaw du ma leen ko magistrat moom tamit ñoo ngi koy avancé waaye ki nga xam te ne mooy Medina am na boo départ du ma leen génn naa lay teex du ma leen génn magistrat ñëw na ci moom magistrat de numéro trois waaye daal di góor dafa mel ni moo nekk sixième position dañ ngaa téye tey dañ ngaa téye pour mu war a jàpp moo nekk septième position magistrat le numéro 3 moo génn ci kanam. magistrat par Momad Dieye Momad Dieye moo ko war. mu ah, jox deuxième position du ma yéen troisième position Darou Khoudoss quatrième position. ma yéen xale bi ko war moom mooy Ousmane Ka. Ousmane Ka moo war ma yéen. ala ala accu doomu ah. Cheikh. magistrat gën na di galopé. ah monté par Momad Dieye. moo ngi jàpp di doomu war xooy moom ak bel ñoo bokk benn baay. waaye du ma yéen doomu Descargo Parc la. ñëw na deuxième position troisième position Darou Khoudoss doomu Cameroun la. quatrième position gis naa daal encore lu ñu na Auguste ah, moom tamit Dakar avancé na d'office waaye ki nga xamante ne mooy Daaru Salaam moom moo jiital fas ñooy tool tournal Touba gi magistrat génn ba léegi en première position magistrat magistrat le numéro trois en première position en deuxième position Doumayen le numéro cinq en troisième position Darou Khoudoss Darou Khoudoss le numéro huit en quatrième position Auguste le numéro deux ah <laughs> tey Ablaye Ablaye Ablaye du yomb non non dawal takk la ah. dawalu technique la waaw li jaay li ngay rawante bu ubbeeku rawante bu ubbeeku baa ngi nii waaye ba léegi ma tactique de jeu la laaj rawante expérience ñu jox ñu mën a raw mais parce que mooy ram moom ñëw itam ko nga xamal ci ne kenn demagul fenn ba léegi magistrat te te magistrat yi mel la peloton duma yéen alors ensemble extérieur Daaru Xudoos gis naa Auguste daal di avancé gis naa Médina avancé Alphas avancé na Dardas avancé na waaye Dar Salaam ba léegi moom moo jiital fas yi waaye magistrat génn na monté par le cavalier moom moo Momar Dieye ki nga xamante ne moom mooy alaaju moo Ngor duma leen Daaru Khoudoss ba léegi moom mooy tenir daal li Ngor na quatrième position d'office Medina avancé na Auguste maa gis ñoo ngi koy dawalee loxo mais déplacement am yombul waaye ba léegi wuti wuti dépense nag dawal nañu duma yéen ànd naa Maïsra ah. duma yéen magistrat duma yéen magistrat Medina Medina Medina Medina jaar na ci autoroute à dawal nañu damel teeñ damel teeñ dawal nañ ko hmm. dawal nañu damel teeñ tey rawante bi tey waaw wër mais Dardas déclenché na Dardas ñëw na fa mu daan ñëwee avancé na Dovis waaye Dardas Medina tey nag Medina Siri Sow ko waaye Dardas dal ci kawam ndax bu ñu àndee deux cent bi ni ñu defoon keroog la ñuy defam déet ah. loolu waaye gis naa ki nga xamante mooy damal teeñ moom it waaye Dardas génn na waaye ki nga xamante moom moo jaar na ci kaw daf ma jox ki nga xamante moom mooy Alfate Alfate la avancé na dawal na Darras ànd nañ dawal Medina Alpha Darras Auguste waaye Medina Alpha Darras dawal nañ Darras dawal nañ Darras encore dawal nañ Darras dawal nañ Darras Darras Eto'o Ross Darras Medina Darras Medina Darras Medina Alpha Auguste. Ablaye Ndoye ah. Ablaye sànq ban fas ndox mi dafa euh, la Alpha. Alpha moom si ay la ñu wax fii tijjeeku na gars yi jóg nañu jóg nañu jóg nañu fas bi na ci ligne bi kàlla lu ñu na mais seen naa na kooku dama waar fayel ak ma def lëng ko ah du ma yéen ñëw deuxième position ko ñëw troisième position bàyyi saa mu la deuxième position daal ko du ma yéen ñëw troisième position quatrième position midi na dafa teel a xaaj na fas ñëw moom mooy audit bi bu Riyad Sidi Mouhamed Niang euh, na mu ngi leen di bootu naa saxir caam bi magistrat noonu di doomu war Warxos Warxos par Galileo en deuxième position Doumayen moo fa nekk troisième position Dalincor quatrième position Dardas moo fa ne ndax Dardas tey dafa teel a xaaj groupe bi ñëw. waaye euh, euh, ki nga xam ni moom mooy ki nga xam ni moom mooy magistrat moo génn ba léegi. waaw Rayane mi ngi ci biir groupe bi. Uh-huh. Uh-huh. ki nga xam ne mooy Auguste mi ngi xartu xoolal. Uh-huh. joge Auguste mi ngi xartu. mais joge baa ngi ko téye. waaw def na avancement. te te magistrat mooy génn daal di ko ñëw deuxième position. gis gi mooy yéen moo ñëw troisième position quatrième position daal daas ma fa làngaat Auguste tey boo xoolee daal di ko dafa changé joge Saliou Seck moo ko war waaye ba tey magistrat mu ngi nii si kanam moom tamit Modou Dieye moo ko war mu ngi si kanam mu ngi nii presque waaju boo ko la mille di ko deuxième position duma troisième position Auguste Sernac mu lunju quatrième position doomu Sirion la par Théophile Galileo moom ak Dar Dar ñu ngi nee di waa ñëw si deux cent bi rawante naa neex rawante bi nar naa neex waaye ba tey ki mooy magistrat magistrat génn na mu ngi noonu bouclé na mille mètres yi mu ngi mu ngi noonu di ñëw ñëw nañu uh-huh. gis nga dalim koor gis nga dalim koor bu ma yeen troisième position te Medina mu def avancement uh-huh. Medina def na avancement uh-huh. waaye ba tey tey euh, ki nga xam ni moo génn mooy magistrat Ogina Ogit Ogina Ogit Ogina Rayane Rayane Rayane Rayane def na ah. avancement waaye ba tey magistrat moo génn du ma leen ñëw na deuxième position doomu Deska Gopal la ak Bébé Cuuj uh-huh. seen naa mi dinaa mu ñëw jël troisième position Auguste mu ngi seen biir daa baas aussi avancé na léegi duma yéen ak ki nga xamante ni mooy Medina jàpp na ki nga xamante ni mooy magistrat uh-huh. waaye duma yéen nag génn na doomu Descargo Kaamul ak bébé duma yéen génn na bopp waaye daa mel ni daa mel ni Medina mayu ko dara waaw aw Medina Medina jaar na ci aras ba ñoom ñëpp dawal nañu ñoom ñëpp dawal nañu Auguste ah. ñoom ñëpp ah. dawal nañu xew foofu waaye ba tey ñëpp dawal nañu deuxième position duma yéen génn na duma ah. yéen moo génn mu ngi ci ligne bi duma yéen moo génn mu ngi ci ligne bi deuxième position Auguste moo fa ne troisième position euh, Rayane jaar na ci aras ba Rayane jaar na ci aras bi Medina ñëw na léegi Medina génn na Medina génn na deuxième position deuxième position dina troisième position kii moo fa nekk ah, Augustin quatrième position ah. ki nga xam ne dafa nekk mooy Daba ah waaye ñu ngi nii fas yaa ngi ñun deux cent vingt deux mille di ñëw bu ñëwee dañuy téye Dardas ñëw na deuxième position Dardas ñëw na Dardas Medina Dardas Medina Dardas on est plus fort à l'âge Dardas Augustin moo ñëw troisième position na leen Augustin mu ci ligne bi ah. Medina doomu Sobé bi ñu la ah Euh, Médina deuxième Mermoz deuxième Médina troisième Auguste quatrième Rayane cinquième Rayane cinquième Doumbouya sixième Amine Ouma septième Malior Doumbouya loolu la ñu gis en euh, ki nga xamante moo raw nag mooy Médina nekk doomu Soleil de Minuit ak Médina lu mel la ñuy war a yaayam yaayam demi cent watee ma loola ak bénig ak ci terme siifat nga teglu ko ci nga xamante mooy Soleil de Minuit mu jur nga xamante mooy la Médina mi tey mu ñëw defe bi mooy deuxième victoire mu demee nii wala ta Dar Daas mu ngi nii taxaw tribune bi yëpp jug nañ uh-huh. macha allah rawante neex na mu nekk course boo xam ne course bu rëy la jóg nañu naari góor yi jóg nañu naari góor yi jóg nañu naari góor yi jóg nañu Rayane moo génn ànd ak yéen Ngoye Latyr moo ngi toog waa Maïsara ñëw na si kawam troisième position Rayane Pep Toos Diawara Major moo ngi toog quatrième moo moo waaw ki nga xam ne moo génn moom mooy Douma Yeen Douma Yeen en deuxième position Douma Yeen Rayane moo génn ki nga xam ne moo génn mooy magistrat magistrat deuxième position ki nga xam ne moo fa nekk mooy Douma Yeen waaye ñi ci des ñëpp muy Rayane muy Aminu Ouma muy Faydu muy Major muy Daaru Xuddoos muy Ngoone Latir ñi ngi ci biir groupe bi. dëgg la tonton Dia comme ni nga magistrat moo génn moo ngi yemale deuxième position Doumayen troisième position Major quatrième Ngone Ngone Ngone Latir cinquième position diggante Darras Darras yokku na kalaas bi Daaru Xudóos moo nekk cinquième position Tons Tons Diallo. waaw ki nga xam ne moo nekk ci kanam moom mooy magistrat magistrat. jockey bi ko war mooy jockey expérimenté muy Mamad Dieye waaye nag favori bi mooy Dardas ndax Dardas am na 9 sorties am 4 victoires ak 5 placés waaye tey ki nga xam ne moo war Dardas mooy ngañ boucler nañu 1000 mètres yi mu dese leen 1200 mètres. dëgg la Pape Peltos Diallo ba léegi Maïsra moo génn Dumayeen bañ na Dumayeen génn na may Dumayeen génn na troisième position Maïsra quatrième position Ngoon Latir cinquième position Dardas. du meen génn na Fall Diop moo ko war troisième position Major moo fa nekk Oumassa Diallo moo ko war tonton Oumar Diallo. waaw dawal nañu Aminou Ouma dawal nañu Rayane dawal nañu Rayane dawal nañu Aminou Ouma. Rayane Perdas Rayane génn na Rayane génn moo dem ànd Dardas Dardas génn ànd du meen bañ na ba léegi tool bu Diawara Docteur Valle bañ na daal. Dardas moo nekk en troisième position waaye ci diggante Dumayeen la ak Rayaan Dumayeen Rayaan ak Dardas ak ki nga xam ne mooy Aminu Ouma Aminu Ouma major dawal nañu major dawal nañu major. dawal nañu major dawal nañu sen Dardas ñëw na seen kaw. Dardas ñëw na kaw Dardas génn na deuxième position du Moyen Dardas génn na troisième position major quatrième Aminouma cinquième Rayane troisième cinquième sixième position Ngoli Babal Dardas génn na Dardas génn na Pépé Laysar et waaw Dardas moo génn ci kanam jockey bi ko war mooy Ngagne Dieng Dardas génn na. Dardas génn na Dardas génn na mooy numéro 6 bi Dardas génn na waaw Major ñëw na en deuxième position premier Dardas numéro 6 deuxième Major numéro 5 troisième ki nga xam ne moom mooy Duma yéen waaye quatrième waaw waaw magistrat magistrat Dardas kusu ah, bi neex na wax dëgg yàlla tey wan nañ kusu wane ne ba tey moom mooy Dardas mooy favori comme ni nga waxee dem na no passant am 4 victoire mooy cinquième victoire am si naaru góor yi Père Tonton Diallo leen calendrier bi nga xam ne mooy calendrier comité national li nga xam ne moo des dese nañu 13 journées suñu kanam ndax xam ngeen ne euh, course yi ren euh, mois de décembre lañ ko ubbi woon ñu fas yéene ko tëj li nga xam ne mooy au mois d'août mu nekk lu am solo am na course yoo xam ne moo nekk ci ñu kanam xam nga ne euh, dimanche bi ñu dégmal muy le cinq mooy euh, moom mooy doon 19e journée muy am fële nga xam ne mooy Thiès bu ñu ci jógee le 9 ñu jëm fële nga xam ne moom mooy Tivaouane bu ñu jógee Tivaouane nag xam nga le 9 la ñuy dem Tivaouane. Euh, le le 2 aussi ñu ngi dawal Thiès le 9 ñu dem Tivaouane dimanche bi nga xam ne euh, moom mooy le 16 le 16 mai ñuy dawal grand prix euh, ki ren euh, comité régional bu Dakar di ko organiser muy Omar Bawo junior buñ ci jógee ñu ñëw nag grand prix ministre de l' élevage euh, comité comité national de gestion ànd ak CDG bu bu Daara Jolof ñu ñu koy organiser muy am fële ci Daara Jolof buñ ci jógee dimanche bi nga xam ne mooy le dimanche 30 muy grand prix renaissance africaine welcome events di ko organiser muy Papis Niang buñ ci joge nag ñu ñëw ci li xam xam ne mooy grand prix assemblée nationale mu am le 6 juin ñooñu nag xam ngeen ne groupe 1 bi ñoo koy daw bu buñ ci jógee nag le dimanche 13 muy Golden Fil gala du galop ki koy organiser muy Pape sec muy am le 13 juin buñ ci jógee nag le dimanche 20 euh, le dimanche 20 juin muy grand prix. Euh, première dame muy am comité régional bu Louga di ko organiser muy am fële ca hippodrome jibi Diouf nekk fële ci Louga bu ñu ci jógee nag le dimanche 27 euh, au conseil des collectivités territoriales madame Aminata Mbengue Ndiaye nekk président bi moom la ñuy organiser fële ca Louga buñ ci jógee nag dimanche bi nga xam ne mooy le dimanche 4 euh, juillet ñuy organiser grand prix bi nga xam ne mooy conseil économique social ak environnemental président bi nekk Idrissa Seck muy am fële ca Thiès buñ ci jógee nag euh, le dimanche 11 juillet ñu dawal li nga xam ne mooy journée nationale du cheval doté du grand prix du chef de l'État son excellence monsieur Macky Sall muy am le 11 juillet bu ñu ci jógee rek xam naa ne euh, dimanche bu ci topp tabaski la ñu repos waaye bu ñu ci jógee nag euh, le 27 euh, ñi nga xam ne ñooy dawal mooy journée boobu nga xam ne mooy journée du Jolof CDG bu Daara di ko organiser Pape Ndiaye Mbaye Anta nekk président bi muy am le 27 juillet bu ñu ci jógee nag dimanche bi nga xam ne mooy le premier août. ci la ñuy clôturer li nga xam ne mooy saison bi mbokki turfistes yi mbokki amateurs yi tey loolu lañ leen indiloon seen espécial euh, crack adulte yi muy groupe 1 bi seen émission bu mag boobu nga xam ne mooy au ñu leen di jox dig daje euh, beneen euh, samedi incha allah.